asalaamaaleykum askan wi ñuy bàyyi xel ci seen site bu am solo bi di sunugal 24 euh, point net mbokk yi sunugal 24 point net ni mu koy safoo di defee saa su ne di seen jotaay xalima bu ñëw mbokk yi xalima bu ñëw nag del si waat tey fii ci diwaanu Hann Mariste buñ ko waxee tam mbokk yi xel itam day delluwaat ci jëmm ju baax bi di sëriñ euh, Modou euh, Borom Baax sëñ Modou Borom Baax balaa ñuy sori ñu ngi wax asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Muntaxa yaa xayra munsilin waxaabi xasbala wa xayra munsilin xabaabi basmala salli bi taslimin ala man faaxa fi xalqihi wa xulqihi ittifaaxa jërëjëf sëriñ euh, Modou borom baax la ci nuyoo yu sell yu tedd yi lee tabarkalla euh, sëñ Modou borom baax fu ñu dellu si waat te rek tey euh, xam naa ne jotoon nga wax askan wi fa nga xamante ni fa nga jugee itam fa nga cosaanoo fa nga gëstoo xam ne wàllu xam-xam tey fi may dugg rek yaakaar naa dootuñu ci jaaraat wax waxaat olof Ndiaye nee na du bari wax waaye ngir ñu mën a xamaat sëñ Modou borom baax tey ñi lay soog a waat xel tey su ma noonu laaj fan nga gëstoo asrar lii nga xam ne tey yaa ngi ci dimbalante ak askan wi loo may tontu waaw asrar de sëñ Muntaxa maanaam dafa nekk tool yaatu boo xam ne sii maanaam daanaka mën ngaa toog ci benn place sax waaye du tax nga nga nga dakkal ko maanaam tout le temps yaa ngi ciy nekk moo tax sax yenn ci nit ñi di la soxla duñ la gis ndax bu boobaa tamit yaa ngi dem di yokk sa xam-xam ndax rek ku fi mën a ñëw nga fajal ko aajoom euh, asraar bi nag maanaam ñu ngi ko gëstoo Touba maanaam moom nañ ko toqantale ci suñuy waajur mm-hmm. euh, bi ñu si jógee nag ku nekk xam na ne xam-xam du rek li say waajur xam ndax am na ñeneen ñoo xam ci ay boroomi xam-xam lañ mm-hmm. ba tax na faaw nga dem fekk leen fu sori liggéeyal leen ñu man la am luñ la baaxee lu te ak li say waajur yore mooy tax nga am ci lu kawe sa njort. macha allah mm. tabarkalla yaakaar naa loolu nekk na loo xam ne lu maam am solo la euh, ñu daal di ñëw ci bunt li nga xam ni dama fay yëkkee tey muy wàllu euh, seet euh, sëñ moo de borom baax ñu bëri seet dañuy jàpp ne rek ni bunt asrar la ndax ku mënul seet waroo mën ñaan ñaan yàlla ndax ñu bëri dañ koy wax yow loolu d'accord nga du ma ci d'accord bu baax a baax a baax ndax maanaam gis naa koo xam ne si maanaam bu la seetalee nga ne kii mooy ki ëpp xam-xam ci àdduna bi. waaye mënut a ñaan boo ñëwoon sax danaan la man moom seet rek laa jàng. nga xam si maanaam seet benn ci sëriñ si am na ñoo xam dañuy gis ne nit ñi moom lañ gën a bëgg. Mm-hmm. moo tax ñuy dem di ko gëstu bi waaye man nag xam-xam dëgg li ma ko jàppee bu seet rek ndax maanaam nit ki ñëw ci yow. maanaam même boo ko seetulut sax moom dina am jafe-jafe yu mu ku ci ay mbiram mën na laa wax ne man kat suma ma sañoon nga ñaanal ma ci nangam ak nangam ak nangam waaye nag comme jamono ji tamit euh, nit ki day bëgg tamit ñu xoolal koy mbiram donte danañ ko ñaanal moo tax it ngay gëstuwaale seet bu ko defee man cee di ñaan ak xeet yooyu. waaw bu dee seet googu nag. Mhm. maanaam dañuy façon seet yoo xam si moom. dara gënu ko wér. wala maanaam boo ci seetalee nit boo loo moom nit mënu koo dindi. muy lu mel ne rambu. Mhm. waaye nag seet du rambu kese. maanaam ndox sax ñun dañ koy teel di ci seet. ndox waaw ndox rek. dañ mais mais mais est ce que loolu tam ñu bëri duñu wax ni duñ ko sip naan seetu ndox ak xëy na rambu sax ñu bëri mën nañ ci d' accord parfois. Mhm. am na sax xam ne dañ koy weddi ba léegi. ñoom ci côté ko maanaam dañ ko dañ ko dañ ko daanaka. Euh, lay tontu ci loolu. waaw loolu li ma ciy tontu moom mooy xam-xam boo fi gis rek maanaam yàlla dafa am ci kum ko jaarale ci ñam ko jaarale muy wàcc ba ñëw fii ci ay nit ñu baax léegi tamit bu dee xeetu maanaam nga dégg ñu ne nit ki day seet ci ndox wala ci rambu te yow dese nga am xam-xam dëgg-dëgg danga koy daal di sip wala wax ci lu ne te fekk koy seet ndox maanaam du ab pettaaw la ciy dugal wala dara man bu dee sama seet la maanaam damay am lu may tari rek tafli ko ci su ma ko man laa wax li nekk ci yow yëpp mm-hmm. xam nga man dara nekku ci ndax lam ciy tafli xamoo ndax alxuraan la wala du alxuraan donc kon wuroo ko mën a sip fekk gis nga rek te xamoo nga daal ne ah kii daal li muy def dañ koy sip pour wax la rek ne na ñun lépp lu ñuy def rek maanaam gëstu nañ ko ba xam lu ci diine wax ndax dañoo jàng diine ba pare doo ko mën a jëm ci lasraat ndax mooy waral nga ragal ci yàlla ba mën di jëflante ak nit ñi loo xam si loolu la yàlla do euh, digle d'accord euh, ci wàllu seet boobu daa sax waroon na mën a ndar képp euh, li nga xam ne moo di jotaay bi waaye du ma dugg faw ma dugg tuuti ci poñ bu mujj bi rek mën ci waxtaan ak yow muy wàllu seet ndax am na ñoo xam ni dañu jël ñoom seen heure spéciale ne waxtu boobu la ñuy seet amaana si la ñu mën a gisee Euh, biddeew doomu aadama bi ci boppam euh, xëy na euh, wala wa illaa tam yow jamono bu ñu la wooyee rek yow mën nga seetal nit ki gis ko parce que parfois da ngay wat ñaan la tey sa biddeew dafa lëndam bàyyi bu heure sàngam. waaw man nag loolu duma ko wax comme biddeew bu lëndam. maanaam seet bu nekk dafa am heure boo xam ne si nii mën nga caa seet waaye lam lay wax du doon lu dëgg mën naa doon ay wor man mhm. nga cee seetal ni ba pare wax ko ko mu dem dara du ci am te ma sa am waaw ndax maanaam heure boobu noonu dafa lëndam nekkul ne ci biddiwu nit kee lëndam waaye jëmmi heure bi moo lëndam d'accord léegi nag bu ko defee maanaam man xam naa ay say yu bëri yu may faral di jëfandikoo yoo xam si am na heure boo xam te yow suñ muntaxaa bi boo ñëwoon bëgg ma xoolal la lay xoolal ci beneen façon ndax boobaa bu ma la ci xoolalee ci euh, ramb bi bu ñu xasee timis bi di dugg si maanaam loo ci xoolal nit mën naa nekk loo xam dara du ci du ci du ci moo tax nag loolu noonu di am waaye nag téewut am na ci yoo xam nga nees na koo xool ci heure bu la neex ñun mm-hmm. guddi sax danañ ñu ko woo ay une heure du matin maanaam nga wax ñu ko rek nga patienté bu fekk 30 minutes maanaam ak foo mën a nekk ñu mën la seetal wax la loo sëñ Modou borom baax ndax ba ngay listixaar. waaw listixaar tamit dañ koy def. listixaar moom dañ koy def waaye nag li tax euh, duñ ci faral di def lu bari mooy. ñun maanaam guddi gi dañuy jàpp ci ay liggéey yu bari yoo xam duñ ko mën a boolee di listixaar ak yooyu ba tax na yenn saa yi moom daanaka nit wax ñu ko dañ koy xaw a wax mu patienté wu ba. nañ xaw a am jot tuuti ndax guddi gi liñ suñu liggéey yëpp ci guddi gi lañ koy def macha allah ndax bëccëg gi moom dañuy recevoir nit ñi di waxtaan ak ñoom waaye guddi gi la liggéey bi daal tarkal mm. mbokk yi yéen a ko dégg seen jotaay xalima bu ci diwaanu Hann Maristes yaakaar naa dootuñu leen ko euh, présenté di Serigne Modou euh, borom baax tabarkal la euh, mbokk yi baa ngi noonu rek affiché bar écran bi 77 658 77 48 sëñ daal di ñëw li nga xam ni xëy na jaaroon nga fi mm. mais faw dañu am lu xaw a jaaxal ñu dégg Euh, mu nekk loo xam ne xëy na man dama naan c'est la première fois muy dégg bu njëkk sama nopp bi euh, muy wàllu rab ci côté rab mhm. rab juróom-ñaari beñe yi nga koy fajee sëñ Modou ndax loolu euh, loolu est-ce que loolu xel nangu na ko beñe beñe rek ci juróom-ñaari beñe nga bëgg koo faj fajal doomu aadama ak rab mu doyee waar waaw su sëñ Mountakha damay wax ne xam-xam moom loo ne mosuma koo dégg wala xawma ko moo am waaye maanaam lu ci amul rek amul ndax maanaam boo gisee juróom-ñaari beñe yooyu ñu koy faj ci rab maanaam boo gisee ma la doon wax naan la rab de maanaam dafa nekk loo xam si ñu bëree bëri sax ñu ci nangu di ci di ci dugg ndax dafa am ay danger waaye nag ñun dafa dogal que ne comme suñuy maam dañ ci daan yëngu maanaam teete ñu si ba ñu nekk xale nga xam si buñ ko daan liggéey lépp ñoo koy indi di leen ko tegal ñoom it bi ñu demee ba xam ne war nañoo mën a am xam-xam bi ñu teg ñu ci yoon wan ñu fi ñuy jaar maanaam wan ñu lañ ko nii lañ koy liggéeyee nga xam juróom-ñaari beñ maanaam Euh, nekk na lu yéeme yéeme loo xam ne si maanaam du ma wax ne nit ki ñëw rek rab dal ko rek maanaam moo ko war a jëfandikoo waaye maanaam dina fekk ci yow rab ak yeneen ak yeneen ba pare sax dindi ko ndax juróom-ñaari beño yooyu maanaam tey nit ki mën na koo jëfandikoo mën na laa wax mën ngaa toog lu mat fukki at loo xam ne si nii maanaam feebar gi nii di gàllankoor nit maanaam du la dal te aussi tamit rab moom dana dootu lay yàqalati ndax rab faaw nit ñi tey si mhm. nekkul loo xam ne si nii dañ koy dindi ci nit ki maanaam man mii di wax ak yow naa rab suñu ndaxaa yow donc waaye nag ñenn ci sëriñ si dañ naan la salab yi mën naa la koo dindil loolu moom du wax ju dëgg maanaam xanaa dañ koy dànk waaw kañ dànk moom mooy rab bi maanaam dina soxor ci yow mooy suñ mun taxaa fu mu dem ba déposé ay këyit maanaam raw ba ñëw yàqu ko fu mu dem di wut liggéey mu yàqu ko maanaam bu xamante as ndaw war ko takk soxna jékki-jékki liggéey dafay yàqu boo def concours sax mu ne mu xañ la yëpp lay yàq maanaam mën naa ne la moom mooy mooy yëpp rek moom moo koy moo koy moo ko defee maanaam rab boobu noonu kenn du ko dindi ci nit ki mm-hmm. mais maanaam da koy defal ay ñaan ak ay sarax yoo xam boo ko defalee maanaam au lieu que mu koy yàqalati léegi mais da koy xëccal mm-hmm. li nga xam ne si moo gën ci moom noonu lañ yi jëflante waaye moom wax wax na rek ne la juróom-ñaari beñee moom maanaam ëpp naa ñàkk a jëfandikoo moom d' accord kon daal su may dégg daal mooy rab des mën a defaral doomu adama waaye tamit des koy yàqal mm, mm, mm. macha allah waaw bu baax tabarkal euh, waa kay sëñ Modou ñu ñëw léegi rek ndax waxtu baa ngi euh, dox ñu ñëw ci wàllu euh, ki nga xam ne dafa maanaam yoon da koo wóolu mu nekk yoon moo xam amaana woo na ko wala wooloo bu ko sax amaana tamit nga nekk tey xam naa ni homme defee moo xam ni nga gis ni tey euh, dañuy dem rek di def ci yëngu euh, njënd ak njaay léeg-léeg tam nga gis léeg dañu am gàllankoor ci yoon bi euh, li koy waral rek mooy xëy na ñàkk li nga xam ne xëy ma taxawaay boo xamante xëy na ci wàllu baatin lay tontu ci loolu waaw sëñ Muntaxa maanaam loolu am na solo am solo boo xam ne si sax suñu sañoon dañ ci kii tuuti xaw cee leeral lu bëree bari ndax mhm. maanaam wàllum yoon moom dafa nekk loo xam ne si nii jommul kenn mhm. ndax yonente yàlla Yuusuf tooñ nañ ko dugal ko ci waaw te ku nekk xam na ne ab yonent la pour wax la ne la kon képp nit kuy dund ci suuf mën na laa gàllankoor mm-hmm. mën nañ laa tooñ ba pare dugal la fa léegi nag kon li ci war moom mooy fexe ba mucc ci ak timit boo xasee ba ndogal li am naka nga ciy muccee mooy que ne ñun diñ ciy jëflante ki nga xam si maanaam tey daa ñëw rek nañu ah man de dañ maa convoqué tey xëy na moom la la lan def xëy na xam na ne bu demee danañ ko téye wala duñ ko téye waaye ñun li ñuy wax foofu mooy kooku noonu bu ñëwee waaw maanaam ñu koy liggéeyal ay doom yu ñu koy jox mu wann la maanaam du doom comme comprimé waaye maanaam ay doom la loolu doom la ci garab wolof doom waaw lu muy jël wann ko su ko wannee maanaam bu ko neexee sax moom mën nañoo ko a jox dara daa ti dem te dana ñëwaat fay ñu suñu xaalis ndax danañ ko bàyyi ak lu man a def ah bu tooyee nag sëñ bi. sëñ bi moo war a baax. waaw ah, tooñkat yi ci am. Ah, mooy mooy maanaam kooku bu ñëwee dinañ ko xool bu ñu xamee ne daray tooñ da ci am moom mënuñoo wax a wax ba jëflante ak moom donte àdduna li ci biir lañu ñu tegal ndax ñun li ñuy def yàlla lañ ciy xool xooluñ ci am am bi. Mhm. waaw bu dee tamit ki nga xam ne si maanaam. Ah. moom xay na woolu nañ ko ba dem na ba pare bañ téye ko ñu dégg sëñ Modou ne ah man kat war naa faa mën a dem seeti ko ay mbokkam ñëw fi seet si seet ngir euh, nga bëgg ko ci génne maanaam kooku dañ koy wax ne ko bu fekkee ne àttee guñ ko ndax ñaari moo am ñu teel a ba àtte la wala àttee guñ la léegi nag kooku bu boobaa maanaam bu dee àttee guñ ko ndax bëri na ñoo xam dañ leen di teelu yàgg duñ leen àtte boobaa kooku dañuy accélérer dossier am ko defee ñu teg ko ci table ji àtte ko ñu bàyyi ko bu dee ki nga xam si maanaam moom. te ñu loolu yomb na de mi ngi koy waxee nii. waa du question yomb sax waaye man jëflante naa ci ñu bari. te yaakaar naa lii may def mu ci doon nëbbatu yaakaar naa du ma ñëw jàkkaarloo yow nii ñu war cee waxtaan ndax may naa képp tamit koo xam jëflante nañ si hmm. maanaam nga gis ci leneen lu bokkut ak lii nii maanaam may naa la nga leeral kii kat bu maanaam liñ ci waxoon amu ci ndax pour la rek li may li may wax lu ma xam hmm. na ko ko soxla na ñaan nga xamante ne wax dëgg yàlla euh, xëy na léeg-léeg gis ñoo xamante ne amaana dama koy waxee ci wàllu wale euh, da ngay gis ñoo xam ne dañuy tooñ tooñ a tax ñu dugg fa ñu dugg am na ñoo xam ne ndogal la Euh, amaan na sax ñu toogeel ñu ne fa waaye tamit ñi nga xam tey dañu yor tey moo xam jënd ak jaay tey di ko dox euh, ci wàllu marchandise yu demee noonu tam euh, bëgg tam mbir mi sécurité ci wàllu baatin ci wàllu ñaan wax fa dëgg yàlla ba du ñu am gàllankoor ci yoon bi waaw affaire yoon foofu noonu ni ñu ci liggéeyee mooy nit ki lu ñu lay wax rek pour wax ne lu ñu xam lay doon te lu ñuy def te yàlla tax lay doon mooy yooyu yëpp buñ ci liggéey maanaam nit ki buñ ko ko joxee sax mën nañ ko wax bañ ñoo jox dara pour wax la rek ne la maanaam li ñuy def luñ xam la du am am bi mooñ ci intéressé kon daal wóolu nga ko daal bu baax baax a baax ndax yàgg naa ci jëflante nit ay ay nit ñoo may seetaan kon yaakaar naa li may def lu ma xam la waaye loolu noonu kooku buñ ko joxee liñ koy jox hmm. dañ ciy liggéey yu bëri nag ndax am na ci boo xam ne si ni deru bëy mu ñuul kukk lañ koy liggéeyee am na ci boo xam ne si ni deru ñàngoor lañ koy liggéeyee deru yeewu maanaam moom lañ koy liggéeyee hmm. am ci boo xam si sunguf suñ lay jox la rek nga def ko ci sa nafa maanaam saa boo xëyee xool ko maanaam dañuy wax ne boo ko xoolee sax maanaam takk der bu repp rek ci bis boobu moo lay jéem a sax xool pour jéem ah. laa lijjanteeg yooyu ah mais sëñ bi loolu doy na war de mais ma lay wax lu may yéeme lu mais bu jàkkaarloog moom baa du am jafe-jafe tam waaw mën naa bañ am jafe ci kaw bu jàkkaarloog yow mel ne ku amut ci yow soxla waaye ku repp dëgg rek moom mooy moo lay gis jamono ji bi nga jëlee suuf si ba xool ko dencaat mu ñëw di am lenn lu muy jéem a wax ci yow wala dara ak yooyu kon daal loo ma bëgg a wax moonam yoon boobu du gis kenn kenn say bagage kenn du ko laal li ma lay wax kañ ku ma ci defal dara boo bu changé maanaam bu la neexee lépp loo ma joxoon ma delloo la. ok sëñ Modou borom baax est-ce nga xam ne ñu ngi def diggante njënd ak njaay. Hmm. est-ce que ñëpp a ñaan am ne tamit <laughs> ay sambabo a doy waar lañ tamit bu ñu déggee lii mën nañu daw ne nañ wax ne. waaw maa ngi jégalu ci wax ji di ci leeral lu am solo mooy. waaw rek. waaw comme ni nekkee ay nit. xëy na nag yàlla dina def ci nit ku nekk gën ca am lu may xañ ko say moroom hmm. am lu mu may say moroom xañ la ko waaye nag maanaam am na ci nit ñoo xam ne si bu ñëwee ci ñun. dañ leen di dimbali ndax li tax ñu leen di dimbali moom mooy yàlla mi ñu sàkk sax yenn saa yi mu may ñu loo xam si xam nañ ne dañ ciy lore waaye teewul dañu koy may. pour wax la nag ne la nit ki moom fu mu ñëwee ci ñun dinañ fexe ba ndimbal am ci xëy na moo tooñ xëy na dañ koo tooñ waaye dinañ fexe ba ndimbal am ci ndax maanaam nit ki jóge fu sori ñëw am ci yow yitte maanaam pour faj ay aajoom day baax donte nag dañ koo tooñ waaye nag teewul bu ñu la tooñee dinañ la dimbal waaye dinañ la wax dëgg ngir bu ëllëgee boo fi ñëw fexe bañ tooñ la nga bañ a tooñee. d'accord ko tax a jub. waaw ndomba googu moom business rek ko tax ma man maanaam ab jàngalekat laa ko liggéeyal ndax maanaam ndomba ah. te yaakaar naa yow a xam business. waaw waaw ndaxte boo doon xool ba ci président sax man nga ne day business. man naa ko am man waaw bu fekkee ne nag yow maanaam li ngay liggéey yëngoo ci business. waaw te business moom ku koy ku ci nekk xam nga ko ak ku ci nekkul ndax tey boo doon jàngale yow business yoo ngay dem jàngale weer jot ñu kii business nag mooy koo xam ci bu teyee ma nga ca oto ya. waaw bu teyee ma nga ca kër ya. bu teyee man nga ca lu ne man nga ca. maanaam di am lu mu ciy gagné di am lu muy joxe te ku nekk xam na ne business moo gën a gaaw a ñu yóbbu la ci yoon. Mm. ndax man ngaa jël dara jaay ko fekk am na lu ci lëndam ñu indi la ci ay jafe-jafe te fekk xamoo ci woon dara nit ku jum ba tax na ndomba business boobu maanaam tey boo ko takkoon. Eh, tey xeet yooyu noonu man su ko jëloon tey jox la nga takk ko. waaw eh, Ablaye Diop jóge la ñëw jaay jaay loolu ak kër wala ak oto fekk dafa am ay jafe-jafe maanaam boo ko jaayee jafe-jafe yooyu bëgg a ñëw këpp sa kaw du këpp sa kaw. dara du ci am. maanaam day mel ne li nga def nii amul danse te fekk danse ju rëy la waaye la la cay génne xamoo doo ci yëg daal. du am benn jafe-jafe te aussi tamit. ndomba gi tey boo ko takkoon tey yow mi war a génn dem lu mel ne tuuba maanaam yoon wi accident war cee am wala leneen ak leneen maanaam ndomba gi day tàng di yëngatu sa ndigil di vibrer comme ni ngay defee portable moo di vibrer muy yëngatu. waaw waaw mais nekk ci biir noonu sëñ li ñu koy liggéeyee maanaam ci liggéey sax kaani da cee am ak poobar ak yeneen yoo ci àll bi lañ koy jëlee. maanaam loolu ñu ko ci defee nii lay def sa ndigil di yëngatu comme portable ni muy vibrer nga xam si noo mën a def da koy dindi. wis ko teg ko à côté saa boo ko takkee nag moom defut yooyu moom jàppal ne foo mën dem ci àdduna fa gën a dansé bu la neexee dem fa dara du la ci fekk. d' accord jërëjëf sëñ Modou Borom Baax bi daanaka euh, dab nañu fi ñuy daanele rek mu mel ni euh, soxna yi xëy na du ñàkk gis nga dafa mel ni soxna yi dafa mel ni euh, ñu bari dañuy wax ne dañuy dàqe moo tax mënatuñu am borom kër ñu bari tam ñu wax ni góor yi tamit takkatuñu moo tax daanaka moom dafa mel ni daal xëy moom boo ko déggee ci koñ balaa nga koy déggaat day yàgg lool waaw si sëñ Muntaxa euh, waxtaan wax dëgg yi ci la nekk ci la am mbokk wax waxtaan wax dëgg maanaam jigéen ñi lañuy dàqee loolu moom lu am am la waaye góor ñi tamit sama mbokk góor ñi ak sama mbokk jigéen ñi jéggal ma góor ñi tamit maanaam takkatuñ waaye loolu yëpp bu weesoo tamit am na koo xam ne si nii xëy na mi ngi ci koñ bi ku baax la ku yiw la waaye waajuram baax nañ maanaam amul benn jafe-jafe te daa xewul deful dara waaye maanaam ku dox ba ñëw ci moom maanaam da ngay génnaat te du xam lan la. Mhm. nga xam moom chaque jour danaan man lan la ma yàlla lan laa def yàlla ndax xam naa ne mel mhm. naa ni ma war a mel samay waajur baax nañ aw ma benn jafe-jafe soxlawuma xaalis bu bari waaye maanaam ku fi ñëw rek day mel ne buy génn dañ koy dàq kooku maanaam euh, ñu ci bëri bëri rab dina leen tey. Mhm. faru rab. te faru rab boobu ngay gis noonu ñu bëree bëri ci sëriñ si maanaam mënuñ see ndax. maanaam téeméeri jigéen nga gis leen ku ci nekk ne la man de faru daf maa jàpp waaye ba léegi daf may sonal kon des nit ñi sëriñ si des nañ koo mën a faj te man maanaam faru man tey boo ñëwoon ba ma ñaanal la ci. waaw ba ba jox la ndax faru rab am na nu mu lay dikkee ci guddi yi. waaw maanaam bu ma la ko joxee dama naan la léegi xoolal ba xam ndax di nga ko gisati wala doo ko pour wax la ne day dañ ci sensé. te bu mooy waral nga mën a am borom kër ndax maanaam tey yow si muntaxam mhm. yi. boo gisoon as ndaw soo xam loolu la koo dal. waaw maanaam nga dem fa yow mu la ci côté yépp baax na. waaw maanaam yow la la fay génn du doon looy gis. d'accord maanaam da ngay jékki-jékki rek yow di di ko bàyyi te doo xam lan la nga xam yenn saa yi sax nga toog ne man de wax dëgg yàlla Awa Diop mii ku baax a baax la te bëggoon naa sëy ak moom waaye nag man xaw ma lan la waaye man daal sama diggante moom sentir ko daal doo day mel daal dootul dëppoo la loolu moo koy waral d'accord yenn saa yi nag nga gis koo xam da ciy dëgër bopp dëgër ci bopp ba am ñu ci def ba fexe ba yore ko waaw waaye bu ko yoree tamit da ngay gis mën nañoo am ay doom yu bëri waaye teew tàqali ko rek day am ndax maanaam rab boo nekk sa ndaw sax maanaam moo koy fiire te yàgg-yàgg nii rek tàkkal kon daal solution ngi fi bu baax a baax a baax loo xam si amul ma dem te ñëw. macha allah fi may daanee sëñ bi sëñ Modou Borom Ba waxtu bi dab nañu waaye nag xam naa rek may daaneel naa rek euh, fa lañ fas yéene euh, gisoon nañ fi li nga xam ne ci jamono muy euh, lamb ji fi weesu amaana sax duñ lay dégg nga ci wax lu bëree bëri waaye man maa ci bëgg a laaj gis tey kaddu yu bëri gis nañ sëñ su bëri waxoon nañ ci. seetkat yu bëri indi woon nañ ci ay kaddu xëy na actualité bi moo moo doxee woon ni ni lan a wax indiwaat ci lamb ji nga xam ci diggante Balla Gaye ak Modou Lo yow mi ma ci laaj dama lay sant lool ndax maanaam ñu bëree bëri dañ may woo ci bu làmb yi amee naan ma nangam ci kuy kuy daan ak xeet yooyu waaye ñun làmb maanaam dañ ci ñaan nag danañ ci ñaan képp koo xam yitteel na la ba nga ñëw ci dinañ la ci ñaanal te buñ la ci ñaanalee na ko bëggee dina am waaye tamit boo ñëwoon ci ñun tamit ñaan loo ñu tamit ñu xool ko ba gis na yow mii tamit maanaam bu ñu la ñaanalee tamit lañ ci bëgg doo ko ci am tamit dinañ la ko leeral ndax amuñu rëy googu ñun ku mën a ñëw ci ñun rek bu ñu xoolee ba xam ne lii nga ñuy ñaanloo maanaam gisuñ ci ndam tamit dinañ ko leeral waaye teew mm-hmm. euh, dama cee dund lu doy ci làmb Modou ji passé mm-hmm. ak euh, Balla mm-hmm. ndax man ñu bëree bëri dañuy bëgg ma ciy wax am na ci ñenn ci site sax ñoo xam dañuy ñëw dékk ma seen micro bëgg ma wax ci ndax dañ am ma ñëpp dañu ci déglu waaye li tax du ma ci wax moom mooy maanaam làmb dafa xaw a yéeme te laa mujj passé dafa am koo xam ne si sama xarit la maanaam ñu xamante waaye moom mi ngi féete woon benn ci côté yi. Hmm. ci ci ñaari mbër yi duñ tudd tur nag dañuy wax rek. maanaam benn ci ñaari côté yi. Hmm. bi mu déggante ñun wax ñu ci ñu ne ko waa baax na léegi dinañ ko bàyyee xel après ci lañ déggante waat ñu ne ko waxal nangam mu def nangam ak nangam ak nangam. Hmm. léegi bi ñu ko ko waxee tamit dox na ci ay yitte ndax fexe na ba wax ko loolu noonu ñu def ko comme ni ñu ko bëggee woon. waaye bi ñu toogaatee ñaari fan ñetti fan te loolu lépp ci diggante bi mu desee fukki fan la rek. waaw bi ñu toogee ñaari fan ñetti fan lañu ñu mu lu yéeme yéeme war nañu maanaam kii nga wax mu def lii de moom mënut a wax a wax a wax ba daal. Hmm. léegi tamit ñu woowaat ko xamal ko ne ko ah noo mën a def daal xam naa jëm fee ñëw ñu am luñ la leeral ndax lépp mu ne su ko wax téléphone. ndax man sama lépp du ko wax ci téléphone. Hmm. léegi bi ñu ko waxee loolu tamit maanaam nee nañu waaw dinaa ñëw xëy na suñu borom dogal na sax mujjuñ gisante. waaye lenn rek moom xasoon nañ ko wax moom mu nekk loo xam moom bu fekkee mi ngi ñuy déglu sax maanaam loolu dina ko mën a seede mooy nee nañ ko woon de euh, maanaam combat bi moom gis nañ ci lu doy waar nga xam si maanaam dafa xawoon a sax ne négligé ndax da doon wax naan maanaam gars yi moom du fi mën a ñëw ndax gars yi dañoo dem ci àll bi wuti ay sëriñ ak xeet yooyu noonu. Mm-hmm. bañ bañ mujjoon sax xaw a tàng. Mm-hmm. ndax man wàllum xam-xam moom bu ci jëflanteeg nit damay bëgg lépp du tegu ci dëgg bu xawee kii rek damay tàng ba nga xam ne da nga naan kii moom xaw ma ne woon ne ko maanaam làmb ji de maanaam bu fekkee ne àll ba nga yaakaar ne fa la victoire mën a amee bu amee ca ca àll ba àll bi boo leen fa demee ba ñëw am victoire ñu dagg suñu toos ndax moom mën na ci seen. yow yaa ko wax loolu. wallaahi azim maa ko wax loolu ne ko maanaam àll boobu ngeen dem. waaw maanaam lu tax ngeen amee fa ndam. ne ko bëriwaane na ngeen dem ci àll ba dafa def ay millions ngeen ñëwoon ci nit lam leen laaj mën naa bëri mat dix mille te seen aajo fañu. <laughs> waaye xool yaa ngi ko gën a xam ndax ñi yaakaar nañ ne xam-xam moom ci àll ba rek. tarkal la koy làkk wala dara xam-xam moom fu nekk fu nekk. tarkal la jërëjëf sëñ Modou borom baax am na solo looy tàggatoo waxtu bi dab na ñu xam na jëmmi jamono daañu amaat jotaay. waaw li ñuy tàggatoo nag moom mooy maanaam di dénk sama bopp ndax man lépp lu may wax te mu nekk luy jariñ wala luy lore mhm. maanaam dama koy njëkk ci sama bopp ndax lu baax man dañ koy njëkk ci sama bopp mhm. maanaam bëri na si sax ñu may jëflanteel yenn saa bu ñëwee bu ma leen liggéeyee dara wala bu ma leen waxee dara dama koy dindi sama ndigg bu dee lu ñuy takk la wan leen ko ne leen bi li ma takk ndax luy jariñ la man lay njëkk a jariñ doog laa jariñ yow mi ñëw toog sama kanam bu dee lu ñuy naan noonu bu dee lu ñuy takk noonu te loolu li koy waral mooy pour wan na lépp lu may jox nit luy jariñ la ba tax dama koy jëfandikoo ba pare bi ñoom yooyu ma jox la ko di di di wax tamit suñu mbokki sëriñ si mm-hmm. duñ ne kenn amul xam-xam wala kii mu ëpp xam-xam wala dara xam-xam moom yàllaa koy joxe faalu li maa yurid ma xool nim ne ko neexee mm-hmm. mu koy defee waaye rek man sell gi ak ragal yàlla ndax loolu mooy li am solo ci àdduna mooy xaalis bi nit ñi di ñëw di ko sàkku ci yow di la ko jox du dara ndax maanaam man gëm naa ne fii ma toog man nit bu ma fi joxoon un samay aajo te bëri waane na kuy ñëw ci yow waxuma la un waaye cent mille mat sax man na la koo bañ a jox waaye rek ñu ragal yàlla te xam ne nit ki ñëw ci yow aajoo ko fi indi waaye yow nga faj ko ngir yàlla nga xam si yow bu la neexee sax war nga koo mën a ñaanal mu bañ laa jox dara mu dem ba ay yitteem faju mu ñëw yëkkati lu ko neex jox la ko pour wan na la kat maanaam jàppale woon nga ko tabarkàlla jërëjëf Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi di ko santaat euh, beneen yoon di sëriñ Modou euh, borom baax mbokk yi moom la ñu fekk si waatoon fii ki diwaanu Hann Mariste mbokk yi di leen fàtt rek numéro téléphone baa ngi noonu 77 658 77 48 wa taala defal ko na yaaxa defal nga yàgg lool di jëflante gaskan yi waaye itam sa defal ndam macha allah mbokk yi ngeen tam ni mu yëkkati macha allah ci wàllu xam-xam tabarkal itam di ku dëgg ci muy wax tabarkal mbokk yi ngi di nuyu mboolem technique bu Sunugal 24 point ci wàllu éclairage bi caméra bi Cheikh Daniel eh, di ko bëral cant ak ngërëm ci wàllu réalisation bi Serigne Aliou Top ci wàllu présentation seen jotaay xalima bu ñëw fii ci diwaan Hann Maristes ngeen ci doon ànd ak seen bokk taalibe bi Mouhamadou Lamine Muntaka yàlla ni borom jàmm tey ku mu jàmmal nga daal am jàmm yàlla na yàlla sa borom bi noonu la ñuy defal jàmm dina assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala